léegi dex gi dafa war a continuer te fi muy continuer lii moo fi nekk gis ngeen immeuble yi gis ngeen lii ñu taxaw ñu tabax ko ci kaw dex gi léegi nag bi ñëwee ba fii nag dex gi dañ ko jël jaarale ko ci ay tuyau yu mag mu wàcc ca suuf léegi nag fi dex gi jaaral xool leen li fi nekk gis ngeen maa ngi nii ci kaw xam ngeen ni fii bu tawee eh, ndox mi euh, du taa day dem dem ci dex yi waaye xool ngeen diggante bi fii may dox nii ak jëm ci suuf nii tey bu ndox mi doon taa ci suuf la jëm léegi nañ leen dem ci suuf ngeen xool lu fi nekk ñu xam fi ñu jóge ñoo gi fii ci kaw léegi war a wàcc ci suuf gis ngeen ma wàcc ci suuf ñu dem bu ma won leen ni ñoom ay liggéeykat lañ gis nga dañoo gas ronu dex gi ca suuf wàccewaat dex gi mu ronu ñu jaarale train yi defaat marché defaat ci kaw marché bi ab gaar gis ngeen may wàcc nii fii ma jëm nii ci suuf la te lii nii du taw ba benn doq ndox dal benn doq ndox du wàcc fii ngeen xam ne lii liggéey moo ko waral boo xoolee ci kaw ak ci suuf daanaka bu ma demee ba ca suufa suuf day ëpp 100 mètres te fii nii bu dee taw sax nit ñi fii lañuy dugg loolu nag liggéey ko waral gis ngeen nii benn fole laa nekkoon gis ngeen fële ca kaw wàcc ñëw fii ma nekk nii nag da ngeen di xool ñu dem mooy fan. Euh, ci ron dëkk bi man nga cee dox déplacé nu la neex te doo jaar ci kaw man maa ngi ci suuf bu doon ci ay étage dama naa maa ngi quatrième ci suuf voilà léegi gis ngeen ko nii nañ leen dem nañ leen dem moo woon leen nit ñii ay jàmbaar lañ léegi fii ñuy dox nag ñun ci suufam ba tey dex moo fi ne jàpp leen ni man mii di dox ci kawum ndox laay dox fu dex am. voilà ba pare te bu tawee am ndox tamit day wàcc ci asamaan si am ndox nekk ci suuf ñoom nag ñu def fi lii kon ku defar fu nit mën a jaar nii ci suuf canalisation yi nga xam ni ci la dex gi jaar moo ëpp lii parce que ay camion dañuy jaar ci suuf ay ci ñëw leen ñu dem gis ngeen ko nii fii ma nekk nii ak ci suuf mat na ak ci kaw mat na quatre étages dinaa leen woon li koy firndeel ngeen gis léegi pour ñu xam ni fii ma nek ci souf ci 4e ci souf dafa am marché amat ci kaw yenen boutique ma dog di delu ci kaw léegi man nañu jaar ni ñew ni gis ngeen fi ni gis ngeen ko presque ville entière lañu def ci souf da ngay déplacer num la neex gis ngeen fi ni xaaral ma dugg maa ngi ca suuf quatrième ca mais bo ñewé fi da ngay am fi marché gis ngeen marché bi ni gis ngeen marché bi ni fii nii marché bi nii mu ngi ci suufa suuf mais ci marché bi nii dex gi moo ko féete suuf voilà gis ngeen xaaral ma dugg rek bu gàtt génnaat fii nii bi ma duggee nii def xaaral ma génnaat balaa vidéo bee gudd voilà léegi fii ci suuf ñu demaat ci fi ko féete kaw doog di demaat ca kaw te du taw ba benn doq ndox dal fii ngeen xam ne liggéey moo wóor léegi gis ngeen fii ma nekk ci suuf ni mu mel gis ngeen ko léegi bàyyi leen ma yéeg benn gis nga escalier bi moo la yóbbu ci kaw a kaw mais beneen escalier boo xam ni moom laay jël yéegaat benn étage ci kaw ma yéeg benn étage gis ngeen te maa ngi dex gi moo ma féete suuf ndoxu taw bi moo gën a bari Sénégal moo ne ci kaw voilà bu ma yëgaatee benn étage ñëw nii gis ngeen fii nii da ngay am marché ba tey gis ngeen ko nii ay supermarché affaire yi yëpp café yëpp daf fi am voilà ba tey maa ngi ci suuf léegi ñu dem ci kaw ba tey nii maa ngi ci suuf gis ngeen ca kaw moo nekk na le léegi ñu dem ci kaw gis ngeen ma jëlaat escalier bi gis nga ñoo jóge woon ca suuf ñoo ngi monter jëm ci kaw ñu nit ñu dem ci kaw gis ngeen ma dox pour mu gën a gaaw voilà léegi nag maa ngi dox ci si nii ci kaw gis ngeen fii ci suuf yëpp te gis nga diggante bi ndox du fi ñëw parce que calculer nañ bu tawee def nañ ko noo nga xam ni ndox mi du mën a agsi fii te jàllul ci suuf gis ngeen ko nii gis ngeen ko ni voilà légui nak dex gi ma len doon won mom dafa traversé ci souf buñu dématé ci kanam di ngeen gisaat dex gi gis ngeen ko ni ñoo ngi dog gi ñew ni ci kaw légui jappal ni fi ñuy dox ni yépp ci souf man na fi jaar ba génne fu ma neex ci biir ville bi loolu nak liggéey mo koy maye gis ngeen ni ñoom li immeuble yi rafet rafet ñoo ngi tojaat di tabax gis nga lii nii fii beneen immeuble bu 46 étages lañ fiy tabax ci ron immeuble bi fi la bi biy jaar mais teewul ñu ngi continuer liggéey ndax fii dañ ni fii ak juróomi at wala juróom benn lépp nan mel ay immeuble yu mel nii gis ngeen gis ngeen gis ngeen dañuy liggéey ba dimanche sax ñii liggéey ñu ngi liggéey voilà gis ngeen ko ni nga xam ni ñii ay liggéeykat lañ te jàpp leen ni fii suuf si dafay yëngutu suuf si dafay yëngutu immeuble bi gis ngeen lépp vert la ngeen ko ni gis ngeen lengue yi gri yaa ngi nii ñu konne di liggéey jàngeen jëf ci kanam tuuti dina dem continuer won leen dex gi nga xamni mo jaar ci suuf nit ñi di tek marché ci kaw dex gi train bi di jaar tim dex gi bu tawé ndox mi muy taw moo upp mi muy taw Sénégal té du dem ci biir gis ngeen ko fi nit ñi duggé ni fi lu mu taw taw ndox du dugg ci suuf